mooy ñu ngi sant ñi nga xamante ne ñoo waral lii tey muy ko ci ni Iliman Lam ak Aziz Aly ah, ginnaaw yàlla ak yëpp nu mu neexee nag ak nu mu mel ak nu mu taaroo ñoom ñoo ci jàpp parce que ci liggéey bi lañ bokk làmb la ñu dund mais aussi tamit di sant suñu papa yi nga xamante ne ñoo tax ñu bëgg làmb ndax làmb fu mu jógee moo sori ancien gloire yi ku ci mel suñu papa ba Guèye Robert ay Falang ay Doubales ay Boy Bambara ñoo xeex lii ba tey ñu ñu a ñoo xeex kon ñun bu ñu xeexul rek du ñu ay góor ndax mbër mbër moo gore mbër mooy jàmbaar mbër mbër kenn mënu ko faj parce que ñun dañuy signé di jaayante di dem ci diini di dem ci montagne yi di dem ci musculation yi di torante ay campagne soxlawuñu alalu jàmm suñu doole lañ bëgg moom lañu sàmm ba saa su ne rek lii am léegi nag yàlla dogal na coronavirus bi yàgg na lool lool lool parce que tey xamuñu kañ la fi jógee li ñuy wax monsieur le président de la république du Macky Sall moom laay wax na wàcc si terrain bi xam lu xew ci réew mi ndax am na solo ndax buñ la jiitalee am na lu bëri mënoo koo xam mais boo wàccee ci terrain bi di nga xam lépp di nga gisal lépp réew mi fu mu toll ndaw sonn nañu jeunes yi sonn nañu bien vrai que nag yàlla suturaal nañu ah ñafe nañ suñu laaj ba àgg fa ñu àgg te dama may xale yoo xam ne topp suñu ginnaaw bëgg ñu yaakaar ñu te bu ñu bëggee làmb aussi tamit ñoom ñoo tax ñoom ñoo tax kon nag rafet na ah, mesure barrière yi mën nañ koo respecté ko mos a respecté dañ ko mos a respecté boobu ñu ngi ciy waxtaan di ci def suñu kàttu laay kattan loolu rek mbër kenn mënu ko fay ndax tey. boo wëccee bu wëccoon nguur nguur day fees dell Gris Bordeaux noonu Balla Gaye noonu kon nag li ñuy ñaan monsieur le président de la République du Sénégal mu tijjal ñu suñu stade ñu ñu suñu kenn pour ñu ñaan parce que su ñu am rek suñu boppul luñ ko liggéeyal parce que ñun la ñeme ñeme nañ ko mais xale yi xale yi bu jar a sóoraale la jeunesse boobu jar a sóoraale la parce que ëllëg njëriñu réew mi ñu ngi ci ñoom làmb nag mu nekk facteur développement boo xamante ne saa waay ah président li daal wax ci jarul yu bëri jarul yu gudd làmb soxla nañu mu ubbi ñu nekk suñu activité daal di liggéey parce que moom nañu am loolu lañu yaakaar képp ku fi mës jaar mun nga nekk ci état. dafa respecté làmb jox cër làmb làmb neex amoon am fu mu toll mais léegi làmb moo ngi am tànk dellu ginnaaw te loolu juróom monsieur le président xippil say bët bu baax te xam ne làmb am nañ ci yow yaakaar te yaakaar boobu mu bëgg mu tas si yow la te loolu boo ne monsieur le président de la République di Macky Sall na làmb loo xamante ne kenn mësu ko defal dëgg la esat am na ma yoosu tamit boo ñu boo ñu boo ñu ubbilee esat bàyyi ñu noonu day metti monsieur le président